tey nag suñu teewaay fii nii euh, du lenn lu dul doxal li nga xamante ne président Macky Sall moom la bëgg te moom la ñu sant parce que gis nañ ne jamono jii ñu toll nii dañoo nekk ci benn crise crise bi nag du dara lu dul mbas mu fi wàcc te gis nañ ne mbas mi commencé na sax nag di naax saayal suñu koom-koomu réew mi loolu moo waral ñu ne ñun kat comme ni suñu président toogee àndee wàcc ci terrain bi di xeex pour ñu mën fee jëlee lii nga xamante ne mooy feebaru Covid 19. loolu moo ñu waral poussé ñu ñun tamit ñu nekkat ay ndaw lañ ay jigéen lañ waaye du tere dinañ boole li nga xamante ne moom la ñu mën ak li nga xamante ne moom lañu am wàccee ko tamit ci terrain bi def li nga xamante ne suñu leader le président Macky Sall moom la ñu sant en plus moom la bëgg aussi. moo tax ñu wàcc tey boole li ñu am defar ay masque confectionner ay masque aussi euh, wut tamit ay gel ay gel antiseptique wut tamit ay madaar yëpp. confectionné lu tolloog 3000 masques ñu ñëw distribuer yenn yi ci biti leneen li ci des moom la ñu jël nii pour stocker ko jox ci waa garage bi jox waa mag bi parce que loolu la parce que ñoom aussi tamit waruñu leen a fàtte wax waruñu leen fàtte euh, mooy population carcérale bi ñi nga xamante ne tey caabi wan na leen ginnaaw ñoom aussi ci ñun la ñu bokk. motax tay ñom aussi situation bi nga xamantene situation Nous bi poussé nañu ñu wutal ay de javel ay madar aussi ak quelques masques yo xamantene dina permettre ñu mëna recc ci mbass aussi damay rek sensibiliser damay sensibiliser ñi nga nous population bi ngi sensibiliser chauffeurs yi suñu papa yi nos parents chauffeurs

lii xeexu ñëpp la du xeexu kenn en plus du xeexu xale rek xaj na am na loo xamante ne sax ndaw moo ko gën a mën mag waaye terewut xeexu ñëpp la même bu nekkee mag ñi am na mag ñoo xamante ne mënuñu wàcc bu leen yàlla mayee tuuti doole mën nañu ñëw doole jooju ñu jàppale ci ñi nga xamante ne moom mooy seen euh, seen mbokk yi nga xamante ne ñu ngi nekk ci réew mi te amuñu moyens yi nga xamante ne dina leen mën a permettre ñu prévenir ci feebar bi. donc damay lancé aussi appel mag ñi aussi ñun ni ñu def ñun xale yi nii xaj na du yomb ci mag mu def ko waaye ñun ni ñu def ñun xale yi bu ci mag ñoo xamante ne am nañ tuuti moyen buñ ñu ci mënee jàppale aussi loolu dina gën a baax ñu gën a booster xeex bi gën a wàcc sur le terrain gën a jàkkaarloog feebar bi gën a xeex ànd xeex corona. comme suñu doole bëriwul nous on a réussi à confectionner 3000 masques 3000 masques avons réussi réussir confectionner ko gel aussi on a des cartons de gel am aussi ay cartons de d'eau de javel aussi donc loolu la pour un début Nous avons fait defagum bay Nous avons ak ci kanam ba avons jën ñoo jàppale nous avons fait yokk suñu